du peuple voilà euh, nu ki nga xamante ne moom mooy Aliou Gérard Koïta ñu ñëw en tout petit peu sur euh, rubrique prison dañuy dem suñu deuxième thème rubrique prison balaa ñu jàll foofu rek suñu invité moom mooy ñëw un tout petit peu sur rubrique prison ñu gis ni yow Euh, da nga demoon fa li nga xamante ne rek mooy police bu foire di laajte ñi nga xam ne ñoom lañ arrêté ci manifestant yi euh, ñaata nit ñoo fa nekk pour yóbbu fa reer mais foofu lañ la tañaxee yóbbu la dugal la ci biir nga bokk ci ñi nga xamante ne <laughs> dañoo dem kaam loolu moo am voilà euh, ñu bàyyi la rek nga expliquer ñu un petit peu ce film d'arrestation naka la demee ñu ngi ci biir rubrique prison waaw Oulaye jërëjëf mhm. maa ngi nuyuwaat ñi fi nekk ñëpp mhm. waaw en li ngeen doon wax sànq day andi prolongement ci arrestation bi ma jàppee rek c'est-à-dire mooy des arrestations préventives ak injustice bi mu amee Sénégal c'est-à-dire euh, parce que sànq wax nañ ko ne faj Walfadjri dañ tëj signalam huit jours après ñu andil ko ñu doo ko andil euh, en fait notifié que tëj na signalam c'est-à-dire mooy wane ne Sénégal daf lay jàpp ba pare di xool lan la tuumaal c'est-à-dire dañu tëj signal Walfadjri ay at ay ay fan ñu doo a xool lan lañ war a taqal Walfadjri donc loolu moo am en fait ci prison yi moom moo am ci jàpp gi parce que justement Euh, le mardi je pense mooy lundi bi nga xam ne moom moo moom moo suivre Ousmane Sonko bi ñu ko àndee dimanche bi lundi mu amoon ay sufure le mardi am na ñun jàppoon le lundi le mardi euh, comme nu ma koy defee à chaque fois dama yow dem euh, faire le tour dem prison jëppal commissariat jëppal laa njëkk a def pour xool ba xam en fait foofu am na ay arrestation pour andi leen ay ay añ en fait ñu ne ma les gens qui étaient là yóbbu nañ leen centrale ma dem commissariat foire en fait j'ai déposé là dix plats de déjeuner di laaj ba xam euh, nombre bi exactement ñaata lañu pour bu fekkee dañu ëpp dix pour après ma ma dolli leen su ma laajee brigadier bi brigadier bi ma demandé de de demander ça au, euh, au commandant euh, ma xaar commandant bu mu génn après je lui en fait ñaata ñoo fi nekk en fait ci ñu interpellé pour ma indi leen euh, ay ba si euh, noonu si la ma commandant bi waxee ne soo ko waxaatee ma arrêté la ah j'ai pas répondu eh, voilà il a dit aux aux enquêteurs là que ni jàpp leen ko dugal leen ko si violon bi après noonu la demee en fait. dafa dafa yow ban taxawaay nga am ba waral yow nga jóg noonu tu es un sénégalais lambda ou bien nga bokk benn kon da nga am benn connotation politique bu waral nga dem wala ci sa mbaax rek nga doon dem di wër commissariat est-ce que da koy faral di def. ba su commission sociale en fait euh, naturellement dañuy def euh, ñu arrêté. gérer euh, commission sociale bi di leen gérer par rapport ak seen détenu mm. donc c' en sens là laa demee pour euh, enquérir ñi fa nekk pour yóbbul leen ay ay añ ba je pense que ne loolu su yoon terewu ko peut-être pas Moussa le peut témoigner peut-être bu fekkee yoon dafa tere loolu wala c'est un délit léegi moom bi la waxee bi mu la waxee boo répété waatee loolu ma tëj la est-ce que répété waat nga ko non j'ai rien après ba ci la waxee que agent yi nekkoon foofu que ne jël nañ ko dugal nañ ko si biir ba après j'ai j'ai wane ma benn résistance aussi après man ma ma dem nga def ñaata fanu garde à vue balaa lay déférer parquet j'ai fait huit jours de ba euh, am na retour parquet yu bëri parce que ma la bu lendemain boo fanaan lendemain la ma déféré au parquet mais j'ai fait huit jours de garde à vue cinq retours parquet je pense. cinq retours parquet ci huit jours yooyu euh, est-ce que yaa ngi nekkoon ak manifestant yi biir est-ce que am na ñu blessé woon ñëw fa est-ce que am na ñu la ci raconté ay histoire est-ce que ci ay manifestation lañ leen jàppee euh, ñoom est-ce que un tout petit nettali nañ leen ñan moo ci gën a marqué ñi la nettali seen arrestation. oui exactement je pense que man maa nekkoon la seule ou man ak keneen ñoo nekkoon les seules personnes qui n'ont pas été torturées lors de l'arrestation yi peut-être man circonstance yi ma jàppe peut-être chef gendarmerie foire moo tax torturé wuñu ma ak keneen ki aussi était de nationalité américaine peut euh, mais les autres tous les autres bu ñu la nettalee ku nekk li mu dund par rapport bu ñu ko jàppee ba ñu ko agsi foofu da nga naan ko dëgg. ils avaient des blessures dañ leen doon torturer torture yu métti yoo xam ne ñenn ñi dañ lay wax ne dañ ma duñu dóor ba à un moment dóoree ba nga sonn nañu jël seen pompe à bi ñu yoroon di ko pompe ci sa bakkan yi naan la xaaral parfum la si des gens yi nga xam ne peut am ne lan la mën a def bu fekkee da nga am asthme wala nga euh, euh, ñu ko jàppee ba commissariat en fait. c'est ñoom loolu ñu doon ko doon def wala ñu civil ñoo ñoo doon def mm-hmm. ñoo am na ñoo xam ne aussi nee nañ leen

dóor ko dóor yi métti ba pare livré ko à la gendarmerie gendarmerie aussi jàpp ko à leur tour dóoraat ko dóor yi métti di ko tendre par carte jàpp. moom moom moo ko nettali en fait oui bien sûr. et boo ñëwoon kaaf en fait li nga daan gis lu bëri mooy ko koo gis boobu toj na wala en fait euh, tànk bi damm na wala dara ñoo fa gis ñu bëri kaaf doo gis xale bu ndaw boo xam ne boobu tojul koo fa gis bopp bi dañ ko dañ ko takk fii yëpp dañ ko collé lépp bopp bi koo gis kaaf loolu moo nekkoon image bi gën a présent présent ci kaaf bi. Mhm. koo gis ci kaaf boobu toj na collé nañ bopp bi tànk bi na et le cas qui m'a le plus marqué c'est le cas de en fait euh, bah, je pense j'oublie son nom j'avais noté ici son sax parce que ça kii mhm. euh, euh, ah, moment boobu noonu <clears throat> est-ce qu'ils avaient euh, l'assistance d'un avocat ñoom moment yooyu noonu quoi bopp yi toj yooyu way avocat ñu ngi doon ñëw ñu ngi doon ñëw ñu ngi leen doon euh, génne di waxtaan ak ñoom ñu ngi doon ñëw di leen en fait set pour assister leen ñoom ñëpp wala waaye pratiquement tout le monde ah. parce que bi ngeen di nekk en garde à vue. waaye parce que bu ñu nekkee kaaf avocat yi parfois dañu ñëw bu ñu ñëwee après demandé par trois personnes ñu génn euh, ci ci ci ci cour bi euh, par trois personnes il parlait surtout les mineurs. mais en tout cas euh, am na benn cas boo xam ne jaxate je pense j'avais noté son nom mais j'avais oublié donc kooku bu mu bu ñëw kaaf chaque jour retour par retour parquet bu ñëw kaaf bu wàccee oto bi dañ koy lëng garde pénitentiaire dañoo koy lëng ba dul kaaf parce que mënul dox mënul toog.

ci ci ci ci couloir bi ba ba bu amee retour parquet mu delluwaat noonu doon jàppante man fa laa bàyyi sax dèjà. fa laa bàyyi xaw ma mandat dépôt la am xaw ma libération fa laa ko bàyyi parce que. Euh, en mais bu doon ñëw kaaf mënul tëdd mënul dox. parce que il paraît que dañ dóor bal blanche ci pooj bi fii nii xam naa faar bi aussi bu dammul aussi sore na sorewul damm dafa dafa blessé tellement tellement tellement mënul dox mënul toog tëdd rek la mën. te noonu la doon jàppante route RP RP RP chaque jour noonu doon jàppante chaque jour RP après ñu delluwaat ko commissariat noonu la doon jàppante kaaf chaque jour peut boo ko ñoon violon man ak moom parce que man sama route parquet yi bari place de l'Oka dafa yenn wakaam boo ko ñoon violon bu ñoon fanaan mais chaque jour ñu doon yenn doo kaaf man bëgg naa xam yow sa audition lan lan lañ la laaj non avant oh, audition bi li ma li ma bëggoon laajte mooy moom comme dafa doon lekk yóbbu lekk la lan toppee déjà oui parce que audition bi bi la ñuy wax lan la. dem na retour de parquet dafa tëpp loolu. mu ne mi ngi doon dem kaaf ak yooyu. mais lan lañ la ñu ma arrêté le mardi. Mhm. mardi ñu ma arrêté parce que añ la woon en fait ñu ma arrêté mardi vers les coups de 15 heures. ñu mhm. ma arrêté mardi ma toog toog après j'ai demandé à l'agent est-ce que da nga may notifier sama garde à vue pas répondre wuñ ma. falaa nekk nekk fa ba fanaan fa le mercredi lañ ma génne pour enquête bi ñu ma génnee enquête en fait agent bi euh, bu mu ñëwee bu mu ma dama ko wax d' abord est ce que quels sont les motifs de mon arrestation d' pare balaa may tontu si sa ay question mhm. ci la génn dem dugaat ñëw ne ma en fait tu es arrêté pour euh, d' espionnage loolu la wax. Ah <laughs> mais en fait ce mooy. ce qui est rigolo mooy en fait ma doon euh, délit bi ñu ma collé en fait ma nekkee commissariat bu ma nekkee brigade ak bu ma ñëwee ci devant le juge. c'est diamétralement opposé en fait. xamee wu la sax xamee wu la sax aussi devant le juge dañu participation à non inter euh, euh, non autorisé lañ ma wax. mais normalement euh, liñ lay toppee ci kanamu juge dafay fekk ne ñoom bind nañ ko ba jox la yow nga liir ko ba signé mhm. ko est-ce que yow audition la defal ba wax la nu mu tëddati. espionnage est bi ngay liir nu mu tëddati seen seen seen audition bi balaa ngay signé est-ce que gis nga ci loolu. waaw loolu lañ bind ci audition bi ba bien vrai que sax man j'ai refusé de parce que. ah signé ko oui parce que. waaw si y a beaucoup nag qui signent en fait mais en fait bu ma ñëwee devant le tu es poursuivi pour participation à une manifestation non autorisée et destruction des biens appartenant à autrui. donc pour quelqu'un qui a été arrêté dans l'enceinte d'une brigade de gendarmerie je pense que c'est diamétralement opposé. Mhm. donc je pense bi moom loolu laa juste d'ailleurs dama ko est-ce que mos nga gis. manifestation au sein d'une brigade de gendarmerie parce que brigade de gendarmerie la ma jàppee donc donc il est hors de question que ñu may toppee participation à non autorisée en fait parce man ñu ma jàppee ci brigade de si mhm. nga waxee loolu mu placé la sous contrôle judiciaire sinon lañ ma placé sous contrôle ah, ah. judiciaire en fait. Ah, voilà euh, kon yow loolu laa la bëggee posé question bi foofu li ngay toog yëpp pour man dañ la libéré carrément. sous contrôle judiciaire dañ la inculpé pour ces participation à une manifestation non relevée sous contrôle judiciaire euh, pour dem yóbbu añ en fait. kon nañ bàyyi di timbalante kon. kii espion la. <laughs> Eh, eh, fait ñu fa nekkoon ñëpp ku nekk si ñoom bu la waxee nu mu ko arrêté ba y a un cas d'un étudiant boo xam ne moom ba muy dem parce que man sama absence moom man mandat dépôt lañ ko lañ ko placé ba muy dem prison mi ngi euh, euh, en fait fasciculum ak ordinateur mi ngi ci saagam. Mm-hmm. parce que dafa wàccoon le lundi. ñëw ba VDN en fait ak je pense que oto bi mënul jàll. foofu noonu si lañ ko fekk jàpp ko. dafa jógoon eh, eh, en fait université ba tey saagam bu mu yoroon man eh, fasu filam nekk ak ordinateur am si la demee rëbës si noonu. ndeysaan si la demee ci noonu la demee rëbës. étudiant la woon koo xam ne.

juge bi moo ko may 2000 francs pour mu jënd dàll pour ne ko xam nga sa kër mu ne sama moyen passe dinaa mën a ñibbi ci ne ko may 2000 francs pour mu jënd dàll bu mu sol ak mën a passe pour ñibbi. dañuy xadi xadi jëmme dañuy jàpp ay nit yoo xam ne ay ay yoo xam ne seen ay parents xamuñu jàpp na leen parce que leen jàpp pare leen bax ñu woote leen may ñu woote bàyyi leen jàpp leen seen ay parents di wër fépp fépp pour xam ba xam jàpp na leen wala jàppuñu leen donc c'est de 11 ans koo ci gis bopp bi dafa toj toj dañ ko toj bopp yëpp. Mm. te bu ñëwee parfois di defeere dana la grand kee moo dóoroon parce que man dama doon rapproché approché chaque jour ci kaaf bi dina laaj ba xam naka lan la def ay torturé mais ku la expliqué ni ñu ko torturé ak ni ñu ko dóoree ba muy ñëw foofu bi ñu ko jàppee c'est inhumain en fait